tey nag ñi ma bëgg a waxal mooy pas autorité yi pas garde côte yi pas ñuy yóbbu gone yi ci gaal yi mais ñi jël décision bëgg dem ñoom lañ bëggoon a laay biir ñu xam une chose bala ñu jël initiative na nong ci gaal di dem parce que it depuis drame Mbour bi ak léegi def nañ ci liggéey bu am solo ci wàllum enquête yu poussé wàllum d'information yi jot nañ ci lu bëree bëri lu takkoo takkoo takkoo ba tax na bépp gone ku ci jëlati sa trois cent cinquante mille wala quatre cent mille wala sax cinq cent mille yu ci ëpp nar koo jox nit mu lay yóbbu Espagne ne leer na quatre vingt dix pour cent gaal yi nar a tegootu ci kaw géej gi dal Espagne duñ yegg wala sax duñ jot a départ donc

les coordonnées yi nga xam fa lañuy ñuy teg gaal yi souvent gaal gu mag gi doogu indi gaal yu ndaw yi di yam di ko fa yóbbu ba ci localisation yooyu noonu am commencé nañ ci liggéey commencé nañ ci collecte des données te ça va rendre les choses beaucoup plus faciles te fi ci jëmit mooy duñu ñu jàpp rek capitaine tëj dañuy jàpp capitaine tëj japp képp ku tegoon ci gaal gi yor sa xaalis ne ngay dem Espagne ndaxte voilà boo xam ne bu illégal la benn ñaar suicide la te yoon fu mu fekk kuy suicide la da lay jàpp tëj la tëj la du la bàyyi sax centre ci biir kaso bi ndax mën nga cee pendre sa bopp ak moom donc bu ko defee it ñii nga xam ne si dégg naa leen nag ñu ñuy ñuy menacer kiy def golo borom masque bi ñooñu mo leen feeñal ndax ñi waron dem ci gamu gi jégg nañ ni renvoyer waat nañ dem bi moy dimanche juru gamu kene kat ñu nekk ñi ñaari gal ñu ne borom masque bi mo leen yoole wi man mi ma leen man ma jël seen heure de départ jox ko autorité yi man ma jël tour yi ñi ñi ñi ñi tëgg gi jox ko autorité yi man ma jël départ bi fan la ak jour bi kañ la joxe ko man ñi ma def loolu donc mënoo leen ci mën dara li ngeen mën rek mooy doxal yoon te def luy servir nation bi liy téye nit ñi ci biir Sénégal gii bu ngeen mënee ngeen dox ci bu ngeen ko mënut ngeen bàyyi ñoom suñu gone ñu lijjanti ko waaye dootuñu seetaan benn yoon ñu ñi def ci euh, euh, euh, immigration irrégulière bi gone yi di ci dee comme ay weñ te duñu bouger suñu responsabilité lépp luñ ci mën a def ba mu arrêté ñu def ko te ci loolu lañ nekk ñi nga xam ne si nag ñooy ca Joal ñan ña nga xam si mën naa tudd sax famille famille kan dangeen nekk fële ci Espagne nga xam ne seeni gone yépp nga Espagne léegi yamatuñ ci nekk Espagne rek dañ faa toog maintenant di tëgg ay gaal ñuy jóge Joal di dem Espagne ñu ngi seen ginnaaw te luñ mën it di leen ko def ba ngeen daanoo Inch'Allah. allah mhm. nous, des di famille Sall nga depuis depuis trois ans c'est depuis 2006, nous les gros euh, les gros acteurs qui yóbbu gone Espagne dinañ def des mën qui luñ mënut en Nous yu xam ñaata ci sont ñoo ci ban date la novembre 2023 xam nañ ñi ko yóbbu dinañ fexe fexe ba daaneel leen ngeen ñoom tamit ñi nga xam ne si ñoo nekk ci barñi giit gaalu TFM yi gaa liñ def TFM design ak branding TFM xam nañ ñaata ngeen yóbbu am nañ ay contact yu nekk ci Espagne te yéena leen teeral foofu yéena leen yóbbu jox ñu ay tur ay surnom sax lañ ko mën a tuddee wala boog ay ay mooy tur tur bu ñu lay wutal boo nekk xale je pense surnom la ay suukar seeni numéro ñu ngi fii gaalu Joal yi ki ko doon coordonné borom numéro 76 bi ñu ngi sa kaw waaye ba nga waajal bu baax a baax ba ci ñiy tëgg ay gaal dëkk kaw la gii di ko tëggee ci ba Casamance di joxe ay yeneen point de rendez ba à la à la dernière minute ñu ñëw embarqué eh, eh, Bargny Mais on est autour au courant de tout ba ci appartement yi ngeen di jëlal ñi ngeen di yóbbu ca Kaolack nga xam ne mooy point de départ fi ngeen joxe rendez-vous par deux personnes ñu leen di wax jox leen heure su defee ñu dajee jël ci gare yu ndaw yi gaalu laa xaw ma mbaare lañ koy xaw ma daare ñu yëpp gona yi yóbbu ca gaal bu mag ca digg geej ga ba ca na yooyu ñu ngi ciy liggéey te gëm nañ ni aussi li koy gën a yombal mooy gaynde sat bii nga xam ne lancé nañ ko ba ki moo jaay mu dem ci kaw jaww ji bépp gaal bu taxawate ci digg géej gi mën na laa flash photo wala mu joxe say coordonnées police wàcc si dugg si jël sa gaal kon bu ma nee vidéo bii du pour ñooñu ndax ñooñu ma soyoon su ma su ma soog ñu jàpp waaye pour ñi nar a jël seeni cinq cent mille nar koo yàq ci dara tay dina def ay lettre def ay pétition wax ak gouvernement wu Sénégal liñ doon muñ muñee wa APR naan du yoon ñu ngi ñibbi ci wa sun ngone lañ bëgg mu doon dëkk ña fa nekk pour l'instant bu leen kenn indi waaye ñu wax ak gouvernement wu espagnol yi wax ak ñoom lu leer nañ ba nga xam bép bépp gone gu ci jëlati gal terre bi Espagne na ko gouvernement wu Sénégal am fulla pour demander gouvernement espagnol ñu yabatal leen seeni doom ci avion ñu ñibbisiwaat képp ku jël sa xaalis dugal ko ci gaal looco yi pour dem Espagne nga xam da ngaa def pour rien soo yeggee ci avion lay dugal ak nga ñëwaat wala sax ci bato loolu mooy dëgg dinañ ci def lu ñu mën dinañ def ay pétition dinañ bind ay lettre adresse ko kii di président de la république ak kii di président Ousmane Sonko ñu xam ne ñun Sénégal liñ bëgg mooy képp ku jëlati immigration jaar ci gaal gi dem Espagne boo demee bu mu fa yedd bu mu fa fanaan mu perdre trois quatre cent mille am wala cinq cent mille am dinañ ci def lu ñu mënta bu ñu leen ko waxee dañu gëm donc yéen xale yu ndaw yi jël seen xaalis di ko liggéey ba dajalee li am li ngeen am ak yéen yaay booy yi nga xam ne yéen les complices ñu ci ëpp di jaay seeni takkaay di ko jox seeni doom pour ñu jël gaal yi ak yéen papa yi ànd ci loolu di leen ñaanal naan leen demal demal ak jàmm yoonu jàmm vous êtes tous complices te lii leer ba leer mooy li ngeen def acte criminel la. ak ñi leen di yóbbu ñu koy tëgg ak ñi nekk ci ginnaaw business bi lobby bi nekk ci ginnaaw vous êtes en train de faire un te lu mu leen jaral rek ndax ay koppar ñu dinañ la ko jaral ndax nation bi ndax patrie bi donc encore une fois ces jeunes là ma laayewaat leen biir kii ñuy wax Ibrahima Seck ca Nouakchott ak jabaram Aïcha te mu dëkk dër Gendar gii moom Ibrahima Seck mi ngi leen di naxe di leen woo naa leen da leen di yóbbu da ngeen jox ko seen cinq cent mille mu tëgg wënd mu tëgg leen linjaa lëkkaloo benn policier boo xam ne bu ko neexalee cinq millions mu ñëw tasaare group bi ñuy jaar fii ñuy jaar ne ngeen yàq seen xaalis musta am gaal musta dem Espagne musta nekk capitaine li muy def mooy day business na ngeen am xel xam ne yéen a ngi ñàkk seen xaalis li ngeen di ñàkk ci xaalis ci immigration irrégulière gii ñi di dem deux ou trois wala ba cinq fois duñ découragé bu ngeen ko investir ci gerte caaf sax romb fi ngeen toll duñ tay ñun jarul nag ngeen ñuy menace gis nañ menace ci ñu doon dem barni ci gàmmu ki egsi na ba ci ñun waye mënu leen ci ñun dara comme Macky Sall mi fi nekkoon noonu ragul wax ma la yéen asalaamaaleykum wa rahmatullah